internet yi suñu xalaat TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax daa mbégte seen saa su nekk ah waaw waaw ñaari da nga ko dagg. ma teg sama suuf bi mooy bi mooy huitième ah. waaw waaw huitième combat. daal laa ñu bëri. mais Ziza Aziz ah combat bi c' est pas équilibré. kii moo ëpp doole kële. waaw pas équilibré. waaw waaw waaw waaw waaw huitième combat. huitième combat de la soirée moom nga am noonu ci biir bi Lac bu 50 moo ñu won ginnaaw Lac Rose bu 50 moo ñu won ginnaaw Lac de Guiers Junior moo jàkkaarloog ñun Lac de Guiers Junior Lac de Guiers Junior waaw moo jàkkaarloog ñun Lac de Guiers Junior bu 50 attention Lac bu 50 attention Lac Lac Rose ñaari Lac la ñaari Lac la Lac de Guiers ak Lac Rose ko jaay doole Lac de Guiers senior école Pape Diouf waaw waaw waaw ko daan na ko daan ko daan ko waaw waaw doole doxul jàmm waaw waaw combat bi dafa dese équilibré nag bu ñu waxante dëgg rek bu 50 daan na Lac de Lac de Guiers Junior ñàkk na combat bi Lac Rose bu 50 na ko Lac Rose bu moom nga am noonu ndeysaan bëri na bëri bi daan na Lac de bi rëy na jëli leer na jëli bi amul benn werante boobu nekkoon huitième combat de la soirée huitième vainqueur de la mi ngi noonu Lac de Guiers Junior ñàkk na combat bi Lac Rose bu 50 na ko tey la tey mercredi tey la tey mercredi 17 avril 2024 ñoo ngi à l'arène nationale le promoteur Ibrahima Lac Rose bu 50 daan na la dëgër junior ndeysaan mi ngi noonu booba nekkoon huitième combat moo jeex loolu léegi doon dox si digganteeg Lac Rose bu kilomètre 50 ak Lac de Guiers junior Lac de moo am ndam Lac de moo am ndam Lac de junior waaye ndeysaan ñi ngi waajal bi cem neuvième combat bi combat social bi di dox si diggante Mbaye Tine bu écurie Bosco Sow ak Ziza bu écurie Doudou Bakassar ñoo ñooy bëre combat social bi waaye grand combat mi dox si diggante Cheikh Kayma ak sës ñoo ñooy bëre grand combat bi mi ngi noonu ndeysaan mbokki internet di suñu xalaat TV yéen wax combat bi jot a jaar neex na trop ñi war a daan ñi war a daanu ñoo daanu lamb moo demee noonu waaye gannaaw bi leen ziyaare rek ndeysaan ci weeru koor bi ñu jógee di leen baalu àq yéen ñëpp te di leen baal àq di yàlla ñu yàlla boole baal namoon nañ leen trop toog un mois diggante woo leen loolay làmb weeru koor bee ko waraloon mais instant bi ñu ngi waajal nag ay bis yu am solo ndeysaan ndax nee naa la saison bi dafa ubbeek ak doole ren combat yi magi taxaw dañoo bëri mbër jugal décourage làmb demee noonu kii bëre mooy daanu te ki la booleel da laa ëpp doole tey waaye mbay tina ngi noonu ndeysaan bu igri parce que soo mi ngi noonu dugg si ci biir géew bi moom moo war a bëre spécial bi jógee feejee sam-sam igri parce que saw moom mii mu fii jógee ci victoire la jógee woon moom mbay tin mbay tina ngi noonu nee naa la yéen a ngi am direct sur la chaîne suñu xalaat TV di leen wax gars yi abonné leen aimé vidéo yi commentaire partagé nee naa la gëjoon nañoo def direct namoon nañ lamb moo tax waaye Mbaye Tine a ngi noonu ci biir géew bi def ay débat débam waaye adversaire tamit dugg na moom Ziz yaa ngi noonu ci biir géew bi mi ngi noonu ngeen gis mi ngi def échauffement nga xëpp dernière butéeli moom Ziza mbayte na ngi noonu ñu def dernier réglage yi mu ngi noonu galaaju mujj yi la gars di xëpp jamono ñu toll nii sunguf seek nee naa la làmb dafa doy waar ak xar fa xuufa te làmb xar fa xuufa ñoo ànd kenn mënu dem bàyyi leen waaye di ndokkeel tamit ndeysaan suñu état bu bees bi nga xam ñoo fi installé wu di leen ñaanal réussite totale rek di wax coow juboon na fi nag ndeysaan ci làmb ci waxu ministre boobu Birame Souleye waxam ji indi woon na polémique yu bëri waaye noonu la Sénégal moo bindoo noonu lu waaye wax rek am na kenn ku nekk ñu mu arrangé ak ñu mu arrangé wut ñi mu arrangé dañuy toog noppi waaye ñi mu arrangé wut dañuy génn tontu waaye di wax lépp na nekk ci jàmm ak salaam rek lépp nañ koy waxtaanee ministre bi wax. lu lu mat a xoolaa lu mat a bàyyi xel la waaye tamit ñeneen ñi tamit li ñu wax tamit kenn ku ne am nga sa xalaat waaye daal ñoom li leen di ñaan ndeysaan ñoom état bi gis nañ seen programme ci wàllu sport gis nañ programme bi ñu tëral dañ leen di encouragé rek wax leen tamit li ñu tëral ci seen 17 ponk yooyu ñu tëral nañ ko nañ ko appliqué amaana buñ ko appliqué xëy na coow li doon coow ay. parrainage ak yaay yëpp yooyu yëpp xëy na mën naa ñàkk ndax sponsor yi dañoo war a ñëw ay di wax daal mi ngi noonu nañ ko waxtaane rek waaw ministre bi li ñu ministre des bi li mu li mu tëral dégg nañ ko xëy na buñ ko appliqué waxuma làmb kese waaye football beeg Euh, sport bi yëpp dina ci yëg seen bopp ndax sponsor yi dañoo war a ñëw jàppale ñiy def sport ndax euh, nekk xamoon nga ni ay temps sponsor yi euh, société yi mag yëpp daanañ ñëw dugg ci làmb lu mel ne ay orange ak tigo waa ñëw ñoo mën a dooleel làmb ji kon ñooñu bu ñu dawaatee xëy na dina xaw a métti ci promoteur yi waaye daal li ñu ñaan daal nag sponsor yëpp ñëwaat rek doolelaat promoteur yi ba tax xale yi ci nekk. gis seen bopp mën a toog bëre toog seen réew ndax xale yi ni ñu génnee dëkk bi metti na jël gaaleeg jaal yoonu suuf seeg ñii di dee amaana seen réew bu amoon lu leen gën a dëgg dëgg dëgg du ñu génn fii la ñuy toog waaye loolu tamit da ngay xool li nga xam ndaw ñi song nañ ko nga jàpp ne lii njëriñ mën a jee génn nga ñëw jàppale leen ci te lambo bokk na si tamit xale yi ko topp bëri na xale yi topp làmb bëri na kon tamit ñëw dugal seen loxo ci làmb ñoom état bi jàppale leen promoteurs yi ci wàllum sponsor yeeg financement yi ba tax affaire dina baax bu kenn ku nekk dootul promoteur bi dina si gis boppam mbër mi dina si gis boppam loolu daal la ñuy ñaan te dañuy ñaan yàlla yàlla yàlla mbiri sotteeg jàmm ak salaam ñi leen ñaanal ñoom ñoom président son excellence Bassirou Diomaye Faye di ko ñaanal rek résultat rek moo membre gouvernement am yëpp askan bi yaakaar bi am si ñoom ba fal leen yàlla bu ko yaakaar tas waa yàlla bu yaakaar tas kon ñu ngi leen di ñaanal rek. waaye mi ngi noonu combat social bi la ñuy présenté noonu di dox si diggante ak Ziza moo jógee écurie Doudou ba fee ca Dakar waaye Mbaye Tine mi ngi jógee fii ci Sam Sam moom tamit ndeysaan parce que Sow la jógee xale yi yuuxoo nañ boobee combat social bi. combat spécial bi mi ngi noonu ci biir géew bi Mbaye Tine ngi noonu nekk ci biir waaye adversaire la ngi noonu am na lum ko bëgg a laalale wala lum ko bëggoon a xëpp wala lu ko kii ndax làmb dafa dee waar mi ngi noonu ndeysaan di nuyu mbokki internet yëpp yi ñi nga xam ne yéen a ngi suivre at seen travers YouTube Facebook ak suñu compte TikTok di wax gars yi leen abonné bu baax te doole ñu ndeysaan dina tax ñu gën leen man di leen jox li ngeen bëgg ndeysaan mi ngi noonu ñaari mbër yaa ngi ci biir géew mbay te ngi noonu ñuy xool ba xam niin ak yaa ngi koy xool ba xam niin ak niinut mi ngi noonu ndeysaan Ziza ngi noonu di def dernier réglage am Mbaye Tine pare na man xool ko waaye Ziza ngi noonu ndeysaan di yëngal ay supporteurs am moom muy war a bëre grand combat bi mi ngi noonu boobay komba spécial bi ñaari mbër yaa ngi noonu ci biir géew bi ngeen jàkkaar lool Mbaye Tine Ziza moo leen waroon ginnaaw mi ngi noonu demaati ci mukaayam am lu muy defaraat ko si bu bankoy woo naka ñëw jël sa protestant ndax yaakamti mbër bul yaakamti ku ci ne nag àndal la sa xel gars dañoo gëm galaaj bi dañoo topp galaaj ba mu ëpp waaye Ziza mi dafa ëpp dafa yàkkamti cey làmb su baa ngi joxe dernier réglage yi mi ngi noonu neuvième combat ngeen am ci biir géew bi combat spécial bi di dox si diggante ak Mbaye Tine ak Ziza Ziza moo wan ginnaaw Mbaye Tine ngeen jàkkaar lool di wax combat yaa ngi noonu arbitre mi ngi wax ak ñaari mbëri di leen wax règlement yi lim nangu ak lim bañ ngi noonu di waaj a sifflé sifflé na génn seen diggante ndeysaan diggante ak mbaytin Ziza mi ngi jóge écurie Doudou Bakassar. neuvième combat combat spécial de la soirée moom nga am noonu ci biir géew Walo Walo face à bu NGB. waagu ñaay seen doom a ngi noonu ndeysaan NGB benn tali ñaari tali biscuiterie yi waagu ñaay asulem seen doom a ngi waaye Mbaye Tine Walo Walo ndeysaan doomu Walo ngi noonu. doomu jàmm gën si gàmbaaw sam-sam seen dooma ngi noonu kookoy maytin waalo waalo moo ñu won moo ñu won kanam noonu Ziza moo ñu won ginnaaw mbaytin coach Sadio moo ko toogal seete côté Bosco Sow Ziza coach Mbaye Faye moo ko toogal seete côté Doudou Bakassar combat bi dem na combat spécial de la soirée aujourd'hui mercredi 17 octobre 17 attends autant pour moi 17 avril mercredi 17 avril 2024 ñoo ngi à l'arène nationale le promoteur Badiane à la tête de la structure Badiane production moo organisé combat bi dem nañu ngi Leewtoo Mbaye Tine Walo Walo Walo face à Ziza bu NGB combat spécial de la soirée moom nga yem noonu Boy Sine moo jàkkaarloo ñun Ziza moo ñu woon ginnaaw Mbaye Tine face à Ziza combat spécial de la soirée bu ñu dem ci grand combat bi diggante Zeus ak Cheikh Kayma eh jëli na ko eh attention rëpp nañ jógaat nañu Mbaye Tine yee Ziza yee Mbaye Tine songu na ko jël bu baax léegi waaye Ziza da ko bloqué ñoo nga ca ñoo nga ca attention Mbaye Tine attention Ziza Ziza mi ngi koy jéem ca jaxabal attention Mbaye Tine eh ñu ngi bëre lu rëy Mbaye Tine yee Mbaye Tine mi ngi koy jéem a takk attention dem nañ ci suuf waaw waaw plaquage ba plaqué na ko Ziza Mbaye Tine Ziza Mbaye Tine Ziza face à Mbaye Tine Ziza face à Mbaye Ziza face à Mbaye Tine waalo waalo Ziza bu NCB Mbaye Tine mi ngi dóor dafa bëgg mu siggi Mbaye Tine mi ngi bëgg mu yee Mbaye yee Mbaye Tine daan na Ziza Mbaye Tine daan na ko eh! Mbaye Tine daan na ko waaw waaw jàmbaar daan na jàmbaar daanu na Mbaye Tine daan na ko daan na ko daan na ko daan na ko jëli bu rëy jëli bu leer jëli bu amul benn werante Mbaye Tine waalo waalo daan na Ziza bu LDB Mbaye Tine daan na ko Eh, Mbaye Tine daan na ko Mbaye Tine na ko daan na ko daan na ko daan na ko daan ko jël bu rëy leer jël bu amul benn werante Mbaye Tine waalo waalo daan na Ziza bu NGB waaw waaw jël bi rëy na booboo nekkoon combat spécial de la soirée aujourd'hui mercredi avril 2024 ñoo ngi à le promoteur Ibrahima Badiane à la de la structure Badiane production moo organisé Mbaye Tine waalo waalo daan na Ziza ndeysaan mi ngi noonu combat spécial bu ma jeex noonu doon dox ci diggante ak Ziza ak mbay Tine Mbaye Tine am na ndam ci kaw Ziza ndeysaan nee naa la ñi ngi dëmbal grand combat bi cay Mbaye Tine xale la waaye mi ngi def jaloore combat yi mujj yëpp mi ngi wane boppam moom xale bi mi ngi wane boppam ndeysaan waaye Ziza ngi noon ci biir géew bi ndeysaan aja ndeysaan boobu bi la moo jeex noonu ndeysaan doon dox ci digganteeg Mbaye moo am ndam ndeysaan moom moo demee noonu da daan bala ñu daan la ndeysaan mbokki internet yi di leen wax gaay abonné leen amee vidéo yi commentaire ndeysaan nee naa la ñu ngi waajal grand combat bi di dox ci diggante ak Zeus ak Cheikh Kayma waaye di wax combat yi fi jot a jaar neex na trop noonu grand combat baa ngi noonu ci biir géew bi mbër yaa ngi noonu dugg si. Zeus mi ngi noonu di dugg si. Kita mulai dari mana dulu, mulai dari ndeysaan mbéy tëra ngi noonu moom di wër géew bi di def galaaju laa bëgg fa bëri teetal waaye Zoss mi ngi noonu at bi baa ngi woote li waxtee combat yi dañoo gaaw moo tax les vingt dix ndeysaan ngi noonu pare baa ngi noonu dugg si pare grand combat bi grand combat bi dox diggante Cheikh Kayma ak Zeus Cheikh a ngi ci biir Zeus ngi ci biir géew bi may ba léegi ah, Kayma tamit mi ngi ci biir moom tamit dugg si mi ngi nee ngeen di jàkkaarloo ndeysaan waaye adversaire am ma nga ne moom tamit di defar ay bagaasam tamit Cheikh mi ngi yor benn sengoor ndeysaan di ko wërale géew bi mi ngi noonu yor benn sengoor di wër moom géew bi cey làmb waaye adversaire ngi daw ànd ak moom Sekema ak Zeus ñu ngi noonu àndandoo mu topp ko bi wërale sengoor bi ci biir géew bi mu topp ko ndeysaan lamu daa bëri tetal xool leen eh, ña nga ñoom ñaar mbër yaa ngi noonu ci biir géew bi ndeysaan ñu ngi noonu di présenté drapeau bi ñu ngi noonu di présenté drapeau bi ndeysaan kii jóge écurie Mor Fadam kii jóge écurie Ram Dam ñu ngi noonu présentation drapeau baa nekk noonu parrain baa ngi noonu

ñaari mbër yaa ngi noonu ci biir géew bi yi pare na ñoom la la ñuy déglu instant bi combat grand combat moom nga yem noonu Cheikh Kayma moo jàkkaarloo ak ñun Zeus moo ñu wan ginnaaw noonu grand combat grand combat. Zeus njaago bi ne woon na ko xeexu njaago du jeex Cheikh Kayma ne ko le 17 avril dana jeex tey la tey le 17 avril 2024 ñu ngi à l'arène nationale le promoteur Ibrahima Badiane à la tête de la structure Badiane production moo organisé. monsieur l'arbitre sifflé na génn seen diggante Cheikh Kayma moo jàkkaarloo ak ñun Zeus moo ñu wan ginnaaw noonu. grand combat grand combat Zeus face à Cheikh Caïman ñu ngi lewtoo ñu ngi lewtoo Zeus face à Cheikh Caïman ñu ngi lewtoo ñoo ngi lewatoo Zeus Zeus face à Cheikh Kayma ñu ngi léewtoo attention jëli ko sarté na ko Cheikh Kayma sarté na ko Cheikh Kayma sarté na Zeus plaqué na ko dan ko plaqué na ko dan ko daan na ko daan na ko daan na ko Cheikh mi ngi noonu grand combat grand combat Cheikh Caïman vainqueur de Zeus waaw waaw mi ngi noonu bi fait bien fait combat bi gaaw na bi gaaw na bi leer na Cheikh Caïman na bëri bi daan na grand combat grand combat mi ngi noonu Cheikh Kayma vite fait bien fait waxoon na ko ni ko waxee woon noonu la ko defee bëri na bëri bi daan na jël bu rëy jël bu leer jël bu amul benn werante waaw waaw Cheikh Kayma daan na Zeuz Cheikh Kayma daan na waaw waaw mi ngi noonu jël ko mi ngi noonu pensionnaire de l'école Mor Fadam le Caïman le Caïman le kayma mi ngi def yëfi Caïman jësit la le Caïman le Caïman le Caïman Cheikh Caïman le Caïman Cheikh la le Caïman mi ngi noonu vainqueur vainqueur de Zes bëri na bëri bi daan na jël bu rëy waaw waaw wane na boppam nee na doole nee na dafa am doole Cheikh Caïman waaw waaw vainqueur de Zes tey la tey mercredi 17 avril 2024. ñoo ngi àndal ak national waaye doo bàyyi kii jox ko bu ko doo ko rek waaw kii jox ko 777 777 non non eh man maa wax ak yow kaay eh man maa wax ak yow kaay. Madi bul kenn man Madi. boo jël yaa xam yaa ñëw ak yow loolu la ñu lay. Madi kii numéro lay jël yaa xam yaa xam. Madi yaa xam sa ñuulaay. Madi kay ma. yow bu def loolu ñoo far sama jigéen de. non yow ñoo far wuy ma yow ñoo far. mais bu xool foofu dama nga ciy xool man. sama jabar Madi la. bàyyil bàyyil. dama lay fas yéene. te jamono tudd Fatou damay. waaye xoolal man Fatou. kay ma waaw yow yaa rus noppi. lii moom la gën a lii. lii. naaj dama waat. jàmm. yow yaa ma war a kay ma man sama yaay maa ngi lay fay baa yaa ngi ci jàmm bu baax le retour de dafa leer bu doy waar waaw waaw ñu ànd ak dal. lamb ji wax laaj ko. dafay neex maa koy bëri. Mhm. Mhm. xeex. Mhm. maay bëre. maay daan man ma foo teg loolu nga ne ma ci nekk xale ci wane waat sama bopp ci lamb. ak liggéey bi lamb moo tax dem ak gëj a gëj a bëre mais mais fii du sama place. wóor na borom daaru fii du sama place. Ah. maa ngi sant yàlla bu baax fii du sama place nañ ma jox samay morom mu bëri ak ñoom mais ñii duñ samay morom. noo du ma ko may dara ndax xam naa ne man la fay am maa ko def maa ko ëpp doole maa ko ëpp doole ko mën te maa ko dàq bëre moo tax ma xam ne suñu roofoo buñu bu ñu roofoo day jeex ma xam na suñu roofoo day jeex kayma moo lu yéeme non dama koy daan afek maama ndax du ma moroomam lamb boolewuñu ba man sam néewu ma fii dama war a dépasser fii combat mooy mooy sore rek mais ñii maa leen mën maa ngi sant di wax jërëjëf borom daaru nag sant naa ko bu baax ndax moo ma ñaanal kon koor gi yëpp parce que laa ko def may bu baax nag di sant sama gaay yi ma àndal yëpp ñoom gaay yi ñëpp aw ma seen fay ñii ñëpp maa ngi sant ñëpp di sant waa Géejawaay ñëpp di sant sama waa dëkk aw ma seen waa Géejawaay neex na sama yaay nag maa ngi koy sant bu baax a baax ndax daf maa ñaanal waaw di sant sama yaay di sant sama yaay <laughs> sant waa kafe gi waa géeja waay Ibrahima ñoom ñëpp ñëpp ñoom Sidi alxuraan aw ma seen fay Iba Thiandoum 2 ñëpp sant naa ñëpp